سميتها مواهب الخديم في المدح والدعاء بتكريمي سميتها مواهب الخديم في المدح والدعاء بتكريمي سميتها مواهب الخديم في المدح والدعاء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 di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu lañ koy ñaanal bépp kilifa diine boo xamante ni yaa ngi fii ci réewum Sénégal mbokk yi di amaat mbégte ñëwaat fii ci Daaru Xuddoos ànd ak daara ju mag ji nga xamante ni mooy daara ma Mafatihal bisiri ci ziar bi nga xamante ni ñu ngi koy amal at mu yàlla sàkk tey ji nag ñu jàpp ko fas yéene ziara ji Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ni moom moo fi toogal Cheikhuna Ahmadul Khadim Mafatihal Bichri nag comme ni déggee saa su nekk seen kóllëre ak Serigne Mountakha doonoon doon jiitu loo xamante ni laata Serigne bi di doon tey Serigne Touba maasa allah incha allahu rabbi tey Touba bi ñoo fas yéene lépp loo xamante ni am na ci ziar rek incha allahu rabbi ñu indil leen ko ay interview wala njàng moo xamante ni mbokk yi xame nañ leen ko bu baax a baax a baax kon nees tuuti kon ñu dikkaat ak yéen suñu yeneen élément jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci Daaru Xudóos nekk fii ci biir Daara Mafatihul Bichri comme ni ngeen ko xamee rek saa su nekk ziar bi nga xamante ni ñi ngi koy amal at mu yàlla sàkk ki nga xamante ni moo fi toogal Seexuna Ahmadul Xadim waaye comme ni ngeen ñu déggee noonu ci tijj bi ziar bi nag ren ji yi ziara ji Serigne Mountakha Mbacké tombeek mu doon Seexuna Ahmadul Xadim ci kaw suuf waaye kenn ku nekk xamoon diggante ma bisiri bisri ak sëriñ Muntaxa mu doon loo xamante ni kenn umpaleetu ko ci fii nga xamante ni mooy diwaan bi ñu nekk waaye ba tey ñu taxaw ak jëwriñ ji nga xamante ni ñu ci bëri miin nañ ko xam nañ ko ci image yi nga xamante ni it mooy image ma faatixal bisri yi nga xamante ni ñoo féete ci wàllu kuréel gi muy sëriñ Xaadim Jóob Nayem mu doon nag jëwriñu daara ma faatixal bisri international moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew fépp fu daara ma faatixul bisri nekk rek sëriñ xaadim mii moom mooy jëriñ international bi nga xamante ni tey jii mën nañ ne liggéey bi lépp ci moom la sosee ba lii nga xamante ni noonu la liggéey bi yaatoo dem fële ca ndakaaru Thiès Njaareem Ziguinchor ba fële ci bitim réew mënuñoo def lu mel nii te suñuy kàddu yi njëlbeen jëluñu ko wax ci lii nga xamante ni mooy liggéey bu tedd bi nga xamante ni amal nañ ko ca jamonoy Serigne Saliou ba tey jii mën nañ àdduna sépp xam ma faatixal bisri mu doon loo xamante ne lu sedd xol la ci taxawaay Mafatihul Bichri ku teew seeni daje rek gis Pastef bi nga xamante ne ñoom lañ àndal rek di nga xam ne kat liggéey bi liggéey bu Serigne Touba gërëm la waaye mu wax rek ci jëwriñ bi nga xamante ne suñu borom jox na ko mu féete ko fii nga xamante ni mooy daara Mafatihul Bichri njiit nag comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek lu metti la waaye rawatina jiite mbooloo mii nga xamante ni ay junniy junniy junniy doomu aadama lañ ñu nekk fenn fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew suñu xaadim suñu borom def daara ji sosoo ci yéen tey jii ngeen amalaat lu mel nii di ko defal ki nga xamante ni moo toogal Seexuna Ahmadul Xadim comme ni ko daara ji defee at mu yàlla sàkk waxtu wii nii lan ngeen yëg ci jataay yi nga xamante ni yéen koy amar rawatina bi lépp jaaree seen loxo. waaleykum salaam wa rahmatullah waa koy Serigne Modou maa ngi lay nuyu ak euh, di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp muy waa ci Vision ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a koy amal. di ko ànd ak euh, daara ma faatee bi si te mu nekk loo xam ne ba mu tàmbalee yàgg na ñu di leen sant di leen di gërëm ci ànd ko rafet gannaaw loolu ñu dugg ci laaj bi muy ziar bi dama euh, yaakaar da ngaa dal ci yëg-yëg bi bu dee yëg-yëg moom mooy sant Serigne Touba muy li nga xamee ni euh, moom mooy sababu ziar muy loo xam ne si nii daara ji yàgg na koo def doon ko def ba mu sosoo ci ki nga xam ne moom moo ko sos muy Serigne Salif Mbacké daan ko ziyaare ci anam mu wuute mu bokk ak ñi nga xam ne noonu lañ koy defee léegi waaye sababu ziyaar moom mooy e, donga wala ab taalibe buy jóg di ziyaare sëriñam loolu moom mooy sababu ziyaar bi daara ji doon daara joo xam ni ku fi nekkal sëriñ Touba yow yaay kilifaam muy daara Mafatil Bichri loole itam e, sabab tey jii ñu jóg war a waajal ngir ziyaare Serigne Mountakha ci anam woo xam ne si nii moo gën a jot nañ ne moo gën a matale donte jot ak xam du yomb waaye lépp loo xam ne mën nañ ko wala am nañ ko wala suñu kàttan mate na ko rek daan ko boole jël ko ànd dem teew ci kanamu sëñ Mountakha loolu moom mooy sababu ziyaar bi ci sëñ Mountakha ndax bi mu toogee léegi nekk sëriñ Touba. Eh, yàlla dogal na waxtu wi nga xam ne moom lan daan ziyaare ki fi nekkal Serigne Touba di waxtu gannaaw tabaski eh, muy ñetti fan tabaski eh, ren jii nag yàlla dogal ñu jàpp ko ci gannaaw korite gi ci ndigalam moom sëñ Mountakha ak bi mu jaaree ci sëñ Moussa am sëñ Mahmadan nga xam ne kenn la ci noonu ci daara bi lu jiitu loolu nag sëñ Mountakha moom. dañ ko daan defal bis bii muy ñetti fan ci kori gi saa su nekk dañ ko daan ziyaare yi mu nekk loo xam ne ay at ñu ngi koy def doon colère euh, gu yàgg suñ moom mu yàgg koo bëgg yàgg koo rafetlu yàgg cee ñaanal ba bari na ci ay archive yoo xam ne mi ngi fi yoo xam ne nii moom lañ ko daan àndal ci lu demee nii suñ digganteek moom itam doon lu yàgg loo xam ne wax dëgg yàlla sëñ Muntaxa manees naa wax ne euh, jàpp na daara ji ñoo xam ne si nii teg na ko foo xam ne nii néewaa na ñu mën a tudd nit koo xam ne nii mën nañoo ko tudd rek tudd kenn rek wax ne defal nga lool jaar nga ak foofu daara ji ndax euh, mënees na cee fàttali benn jot bu bu bu bu gàtt rek benn bis nekk nañ euh, di def émission bi fa ñuy tuddee as sabaax boobaak léegi war naa def ay at fan ñu toog ci di de ci plateau bi di def émission fa mu nekk ci këram la wooteel boppam dugg ci biir ligne bi jot jëwriñ jooja ne ko maanaam wax leen ñiy def émission bi muy daara ma Mafati bi ne leen maa maa ngi leen di bàyyi xel fi ma toog muy lu yéeme ne leen nag bàyyi gi xel mi ngi tàmbalee ci bi bande annonce bi tàmbalee jàll muy ci ajuma ji te émission bi mi ngi nekk dimanche waaye ba mu waxee loolu ba noppi kàddu ya ca gën a rëy. mu ne leen nangeen ngeen leen xamal ne bis na tey jii nii danañ yëg ak yokk yokk seenu bopp goo xam ne nii tey jii lay tàmbale loolu mooy sax bañ jógee foofee dafa sensé rek eh, jamono jooju dañ ñoo daal dem ziyaare ji ko bi ko ziyaare itam jógee eh, ci ziyaar boobu dakkaluñ ko dakkaluñ ko ba tey jii nii saa su nekk ñu di ko ànd ak moom di ko ziyaare gën gaa matale anam yàlla def ren jii nag mu nekk Serigne Touba. nekk sëñ Muntaxa mi nga xam ne ni moom lañ daan fekk naka jekk kon tey jii ñetti fani kori ji ziar bi comme dafa waroon lu jiitu sax diggante bi eh, tey jii nii eh, mooy bi mu fi nekkee léegi waaye comme jege nañ waxtu wañ ko daan ziare ñu xëcc ziar bu mag ba waxtu wañ ko daan def ba mu agsi ci waxtu wii nii ñu boole lépp defandoo ko tey jii boole ko ziar bu mag bi def ko muy ziar général donte diggante bi ñu ko yëgee xat na lool waaye terewul daara ji yëpp maasandoo àndandoo defandoo yitte fexe ba loolu ñu euh, fas yéene ko matali ci gën gaa matale anam sëriñ Modou loolu yaakaar naa ne mooy euh, bu ma ko booleeg li nga ma laajoon day daal di mat ab tënk. macha allah sëñ Xaarim day mel ni suñu ñaaree laaj da nga cee daal di ñëw direct xanaa rek nga wax kàddu sant goo xamante ni mbooloo yi bàyyee nañ fayee ko nañ fenn fu nekk wane pësteef goo xamante ni naka jekk ci lii lañ xam daara ma faa texal bi waaw sëñ Modou gis nga eh, yaa ci tegandoo sa bët li nga may laaj mbooloo mi gis nga leen ñi jógee ndakaaru ñi ngi door a agsi léegi ñu jógee Jurbel ñi ngi door a agsi léegi ñu jógee woon cees ñi ngi door a agsi léegi xëy na waa Ziguinchor yi gisaguma leen ñu agsi waaye gis nga leen fekk si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Touba ak équipe yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ci liggéey beeg yooyu yëpp doon ko waajal ba tey ji loolu moom eh, yaa ci tegal sa bët sa bopp ñu ngi noonu kon daal ñun ñëpp maase nañ jekk nañ fa yéene yabal euh, ñi war a jiitu ñu jiitu dem tàmbale liggéey bi ñuy ñu ñëw fekk si leen ci liggéey bi si moom. ma tëjee rek ci loo xam ne xay xëy na mënta ñàkk lu am solo la ndax itam euh, waxtu wii daaw bi ñu demee ci Sëriñ Muntaxa ba tey ci la jëm comme tey moom la ñuy waajal bi ñu demee am na lu yéeme lu fa amaat ndax euh, ba ñuy dem fekk na mu waajal ñu ab añ mu bëgg ñoo waajal ab añ te xëy na waxtu wa xajatu fa. waaye daa yëkkati ab liim ci ab xaalis boo xam ne da koy yëkkati bëgg koo teg ci loxol daara ji booba nu amoon yéene gàntal ko mooy sëñ Moustapha ak ñun ñu àndal waaye daa dëgër nañu déedéet ne déedéet lii moom sañu leen ko sañu leen ko gàntal dama leen ko jox daal di li ñuy wax appuyé foncé ne ñu maanaam faw da ngeen koy jël ndax dama ko waajaloon ab añ ñu sëñ Moustapha xamal ko ne ko kon bokk am na daara joo xam ne nii ña ngi koy waajal bëgg koo tabax fële ca wetu euh, këru xasida gi wetu kër Sëñ Amsa euh, mu daan ñu euh, daan ne kon ñu daan ne ko kon ñu dugalal ko ci liggéey boobu mu ne waa nañ ma ko defal ci liggéey booba muy muy faf mu ne te ñu tàmbalee ko liggéey ba te buñ ko tàmbalee nag ànd koog yéen ba mu àgg waxtu ba ñu koy wax daaw xamuñu woon ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy tàmbalee lu jëm ci liggéey ba moom lay fekk mu nekk Serigne Touba kon war nañu foofu wax dëgg yàlla baatin E, lu yéeme ndax waxtu wi nga xamee ne moom lañ njëkk def ci daara ji muy bënn fat coo boo xam ne nii day indi ndox ca daara ji jël ay mool commencé ko faa birig bi ñu koy def moom la fekk muy Serigne Touba te ba mu ñu koy wax xamee wuñ ko woon noonu waaye nam ñu ko waxee woon na beneen jàngat keroog ci jataay bi ci xasida goo xamante ni daara ma fatihal bisri yëkkati na fa mooy Serigne Touba kenn du ne mosu koo dégg ci zaahir waaye daf ko daf ko wane ne maanaam xasida gi bu ko gisee xam naa bariwut bay laaj ku mel ne sëñ Moussa Mahamadan xasida googu mooy Mawaahibul Xadim sëñ Xaadim waaw waaw mu nekk xasida gu yéemi xasida goo xam ne sëriñ Masamba moo ko bind di ci tagg sëriñ Touba tagg yuy yéemee yéemee yéemee yéemee ñu jàng ko keroog ca jataay ba mu yéem ko ba mu di ko waxtaanee eh, ñu ràññee ca bëyit woow di walaw daral xalq ak la lu yéeme la ci eh, sëriñ Masamba di wax sëriñ Touba eh, ca loola sax mu daal di sabab lu sàkku xasida gi ne nag euh, nan ko wutal xasida gi sëñ Moustapha toppatool ko xasida gi moo tax bëgg woowu keroog ñu jàng ko ca jotaay ba ay yooni yooni yoon di ko ba macha allah pression bi la wàccaay bi dem ci ki nga xamante ni moo fi toogal Serigne Touba mënta yomb kon ne surtout ñu dikkaat ak yéen الخلق من غيب ملك لك jërë jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi nii toog ak Serigne Ousmane Mbow mu doon secrétaire général Daara Mafatihul Bichri loolu nag dina doon loo xamante ni mënta ñàkk ci ñu dégg ko suñu kàddu ndax secretaire général daara Mafatihul Bichri en tant que daara Mafatihul Bichri fenn fu nekk moom fa cellule ci réew mi ak ci bitim réew ci gën a fës bokk ci Touba Dakar ak fële si Thiès Ziguinchor ak Njaareem mu wax ci turu yi nga xam ñi nga xamante ni ñooy commission yi nga xamante ni ñoo ngànk liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey daara Mafatihul Bichri Sëñ Ousmane ginnaaw bi ñu la nuyoo macha allah ngeen amaat taxawaay boo xamante ni yéen a ngi koy amalaat ci li nga xamante ni mooy ziar bi ñi nga xamante ni mooy ñooy commission yi nan lañ waajalee li nga xamante ni mooy liggéey bi. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Modou Faye ñu ngi lay siyaare bu baax di beral ak nuyoo ki fi nekkal Serigne Touba muy Serigne Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ak wéral cëram di siyaare jëwriñ liggéey bi di sëñ Xaadim Diop Nahim di ko siyaare bu baax a baax. waaw comme li nga laaj noonu rek ñun dañuy daal tontu directement ci la nga laaj muy commission yi naka lañ ko waajalee tàmbalee nañ ko ci commission communication ku gis euh, communication bi nga xamante ne moom la ci daara ji def xam ni euh, génne na les gros moyens euh, ndax lu jiitu bis bii di egg si daanaka ay ay ay bés ci ginnaaw réseaux sociaux yi rajo yi yenn ci internet yi yenn ci télé yi. jaarale nañ fa euh, communication pour wax ni daara ma Faatuma Bichri fépp fu nga xamante ne membre moom fa muy xam membre simple nga wala cellule boo nga xamante ne daara ji am na ko ñoo ngi koy woo ci siyaar bi boo tax nga gis mbooloo mi nga xamante ne moo dajee tey jii fii ci ci daara Xuddoos moo ñu war a fee déparé dem siyaare ji sëñ Muntaxa loolu mooy commission communication bu ñu demee ci commission organisation moom waajal na lépp loo nga xamante ne daara ji da ko yittewoo ci bis bi yi nga xamante ne mooy bisu siyaar bi mu demee ci ko ci wàllu xéewal yi ci wàllum kafe euh, euh, gi ci wàllu basang yi ci wàllu sonorisation lépp loo nga xamante ne daara ji yittewoo na ko rek euh, waa commission organisation boobu taxaw nañ ci ba mu mate sëkk Euh, bu ñu demee ci waa finance ñoom lépp loo nga xamante ne communication organisation soxla nañ ko rek ñoom taxaw nañ ci génnee ko ba mu mat sëkk loolu mooy ñetti bànqaas yi wala boog ñetti commission yi nga xamante ne ñoom ñoo séq euh, liggéey boobu di siyaar bi nga xamante ne moom la ñu war a def mooy ñetti commission yi nga xamante ne ñoo lëkkaloo liggéey ci ba euh, ba ñu ba ñu toll fii ci ci fi ñu ci toll tey ji waaw. macha allah sëñ Ousmane ziar bi diir bi ñu ko jàpp. maanaam mu gàtt lool waaye tey ku fi ñëw da ngay jàpp ne lu ñu waajal at la loolu naka la naka la ci commission yi liggéey waaw foofu mooy li ma la waxoon rek daanaka euh, benn commission bi lan la la ñuy wax mention spéciale muy waa commission communication ndax waa commission communication wax dëgg fa yàlla def nañ ci liggéey bu mucc ayib def nañ ci mu liggéey bu mucc ayib euh, fépp foo nga xamante ne membre moo nga fa rek bokk ci daara ji Euh, def na ay statut ci euh, ziar bi def na ay photo profil ci ziar bi def nañ tamit ay émission euh, lu demee ni ko seen télé bi def nañ ca émission def nañ tamit yeneen émission ci yeneen i yeneen i télé def nañ ay émission tamit ci yeneen i rajo loolu lépp ngir waajal ko xam naa ne looloo waral communication bi jàll ba tax mbooloo mii nga fi gis suñ Modou nga gis ko fi macha allah sëñ Ousmane kàddu yu mujj yi rek ñu mën a jàll ci yeneen jëwriñ yi nga xamante ni eh, ŋànk nañ bokk nañ ci ñi ŋànk li nga xamante ni mooy liggéey. waaw loolu moom kàddu yu mujj moom xanaa di sant di sant eh, bépp membre boo nga xamante ne rek moom ci daara ji di jiital ci sant googu nag ki nga xamante ne mooy jëwriñ liggéey muy sëñ Xaadim Diop Naye eh, ak sëñ Abo Jaxate ak sëñ Ahmad Ndiaye sëñ Abdou Sama. ak euh, sëriñ jii Gueye ak sëriñ Mamadou Lamine Baara Diop li tax ma lim ñooñ nag mooy ñi nga xamante ne ñooy jëwriñu bànqaas yi nga xamante ne ñoo féete fii ci Ndakaaru ci euh, Sénégal kon ginnaaw loolu nag fàttewul ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete fële ci bitim réew am na ci ay membres yu bari yoo xamante ne ñoo nga bitim réew ñoo ñooñu ñoo ngi leen di si siyaare di leen di leen di leen sant di leen gërëm ndax euh, seen i taxawaay rafet na seen i taxawaay gis nañ ko seen i addiye yi egsi na ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm jërë ngeen